honorable Hélène Tine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. nekkoon nga député ci assemblée nationale tey yow yaay coordinatrice bu M7 euh, mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail honorable euh, njiitu réew mi ci conseil des ministres bu mujj bi euh, soññ na ay ministres ngir ñu daal di wax seen am-am fu mu toll maanaam def déclaration de patrimoine ni ko yoon santaane mu nag appal leen fii ak njeexitalu août lu ni mel lan la mun a soppi tey ci ni yëf yi doxee yorinu surtout alalu askan wi. ngeen ma may mu mën a àddu ci euh, mbir yooyu euh, mbir bu doy waar nag nga dañu dégg nii euh, te mu jóge ko conseil des ministres parce que boo déggee ñu ne déclaration de patrimoine maanaam yoon benn loi la moo ko tëral loo xam ne yoon moo ko santaane ñëpp ñu ñu fal ci ba fi ñu toll nii li loi bi wax boo dee ministre boo dee am na lim leen ñi war a war a def déclaration de patrimoine mooy wax ñoom ba ñuy jël cër woowu ñu leen jox lan la ñu amoon ci alal ñu jël ko yóbbul ko OFNAC OFNAC téye ko loi bi ne bu ñuy génn ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu xayma lañu am pour ñu xam ndax seen toogaay boobu ndax est-ce que nekkul euh, loo xam ne dañ cee profité pour mën a ful la ñu am ba mu déggi dayo loolu nag bi ñu koy président Macky Sall di def 2012 ñun ñëpp dañu ko tàcc woon kontaan ci muy of nag bi ñu créé mu nekk lu rafet muy loi déclaration patrimoine bi nga xam ne moo fi indi mu nekk lu rafet jox jëmmal Sénégal nag ci àddina bi yëpp ci wàllu maanaam euh, leeral ci yorin waaye suñu toogee tey nag ba ministre mën a def ci gouvernement lu ëpp fukki weer ak juróom mooy lu ëpp at ak presque genn wàll mu def ko ci gouvernement te loolu yoon fas ko mu war ko def ci diir boo xam ne ay ñetti weer la ci ci suma fàttalikoo li yoon bi wax mm. defu ko kon ministre boobu jalgati na yoon jalgati bu jéggi day te xalaat naa ne président tey war na tal na leneen ak relance bi nga xam ne moom la bëgg relancer koom-koom bi ci lii nga xam ne moom la ñuy dund muy mbas mi ak xeex mi ñu nekk di xeex mbas mi ak coono yu bëri yi nekk ci biir euh, réew mi te war a topp ay ministre yoo xam ne ñoom ñoo war a doxal yoon ñoo war a taxaw yoon ñu doxal ko ñu nar leen a topp ñoom pour ñoom ñu war a wàccoo ak yoon mel ni ay élèves yu waroon def seen devoir metre ba toog lu ëpp at ak genn wàll di leen dàqee pour ñu dem def ko loolu jéggi na dayoo te doy na waar tey na xel parce que nañ ñu wax fukki weer ak juróom yooyu xaw ma fukki weer at ak genn wàll boobu ministre boobu di liggéey waxul la mu am mais loolu ba mu la muy déclarer tey est-ce que la muy déclarer la mu la su amee lu mu àkki si fukki weer ak euh, euh, juróom yooyu mais fa fan lay dugg dañ koy déclarer ne def ko amoon bala muy falu mi am nu muy demee loolu yëpp ay ay wax la yoo xam ne ñu ngi fi. Mhm. ñu ngi beneen wax bi aussi mooy est-ce que OFNAC am na jumtukaay yu doy ngir mën a xam ndax kii li muy wax euh, euh, lu am lam déet ndax euh, bu ñu mayewul xëy na ñii fi jot a nekk bu ñuy déclarer mën ngaa toog ci lu la neex déclarer leneen donc foofu aussi mbirum transparence day posé wu ak fiabilité ci ci déclaration yi surtout. li li lay gën a tax ba yokk. Euh, maanaam euh, OFNAC liggéey ndax OFNAC ba bu fekkoon ne ku falu te OFNAC mu ngi ci maa ngi leen ci profito ñoom waa OFNAC di leen encouragé ndax man xam naa li ñu yéene bi ñu am muy présidente bi fi nekk euh, xam naa yéene bi am ci liñ ko jox ak pour mu taxaw ko ndax liggéey na ci xoolaat na loi boobu ñun ñu voté woon xoolaat na loi wu déclaration patrimoine loi OFNAC yëpp man mii bañ koy xoolaat fekkee naa bañ ko doon xoolaatee te damaa am gàcce jour boobu ndax damaa bokkoon ca député ya ko voté woon te gisuñu woon rëq-rëq yi ne ci biir loi bi. Hmm. ba ñoom ñu gis ko ba di ko corriger. yan rëq-rëq la. am na ay rëq yu bëri yu nekkoon ci loi bi yoo xam ne. Hmm. ñun voté nañ loi bi ndax xam nga ñëpp dañ yàkkamti woon lu rafet la. lu ñu hmm. rafet muy muy OFNAC déclaration de patrimoine ba bañ ko indee assemblée dañ ko voté à l'unanimité kenn amul lu mu ciy gis lu ñuul. ba nga xam ne. des na ci ay mbir ndax dañ la koy indil nga voté ko en procédure d'urgence na ci ay mbir yoo xam ne euh, bañ ko xoolaatee gis nañ ne par exemple ay sanction pour ku deful déclaration de patrimoine mënoon nañ ko exiger ne nañ ko def hmm. am na ci ay mbir yoo euh, niñ ko bindee waroon nañ ko seetaat ndax nañ ko niñ ko tëralee xëj na day tax ko loi bi pour mu efficace day nekk problème hmm. loolu yëpp ñoom liggéey nañ ko ba ñu seet ko xool sax hmm. yan réforme yu bees la def ba du dem ci patrimoine mais dañuy dolli waale Euh, li nga xam ne mooy euh, day tere conflit d'intérêt am mooy fan nga am yow ay ay ay ay ay ay nu tuddati euh, nu mu tuddati foo foo xam ne am nga fa ay am nga am nga fa ay intérêt mooy déclaration d'intérêt ndax am nga ay intérêt ci ay mbir yoo xam ne tey foo dekkee ministre loolu nga am intérêt da ngay mu mu mu mu ab gën a am doole. Hmm. yooyu yëpp. ñu ñoom ñu ngi ciy liggéey ñu ngi leen di encouragé te gis nañu rapport yi ñu teg mais dañ leen war a dooleel war lañ leen dooleel naa ne su dee ay ressources ay ay nit rek ay compétence Sénégal ñàkk ko waaye est-ce que moyens yi ñu jox OFNAC dina ko dina ko may ba tey ñi toog am sañ-sañu toog fukki weer ak juróom te loolu la ñu war a dakkal hmm. ndax ci réforme yi OFNAC proposé dañoo ne balaa nit ki di def sa passation de service sax nommé nañ la demal nga dem uti fiche wala nga dem ci internet ci si sax léegi ñoom dañoo bëgg mu nekk si ci si si si si site boo xam ne da ngay dugg foofu ñu dématérialiser ko nga dem remplir la ngay remplir OFNAC jox la quitus nga doog a mën a def sa passation de service. Mm. loolu pour ñu bañ di perdre temps ak ak énergie président. ci ay topp ay ministres pour laaj leen na def leen loolu dañ ko war a exiger balaa ngay def passation de service ak koo mënti doon te danga war a bokk ci ñi koy def nga dem def ko balaa ngay passation leneen li mooy déclaration de patrimoine dañ ko war di fësal hmm. dañ ko war di fësal damay xool kaw a Khalifa Sall ba mu hmm. nekkee dem nekk mairie mairie ville de Dakar mais dafa def déclaration de patrimoine am sës fësal ko hmm. tey jii tey boo xoolee dëkk yu bëri yu ñu wër déclaration de patrimoine yi dañ ko def ci ci ci ay site internet nguur ga nga xam ministre lu mu am su amee loo xam ne jéggi na dayoo euh, euh, euh, su paree ñu ñu fësal ko parce que buy génn tamit daf ko war a fësal donc président moom tamit comme dañ ko doon topp ci mu def déclaration de patrimoine am bi muy defee deuxième mandat wam bii bi mu ko amee daf ko waroon def ndax loi bi loolu la ko sant mais niñ ko niñ koy toppee pour mu def ko moom tey la nekk di toppee yenn ministres yi ko deful mooy dëkk bi doy na waar ndax nag loi moom buñ ko tegee rek ngay président de la république ngay ministre da ko war a wàccoo ak loi bu ñëpp ci yem xalaat naa ne war nañu rendre public les déclarations de patrimoine mm. ndax man tey Hélène su ma nee dama bëgg man réew mi dénk ma alalam ñu wax ma ne balaa ñu lay dénk alalu réew mi da ngaa war a wax lan nga am mais waruma wax ne la ma am dañ koy nëbb mm. ndax du la ñu dénk moo ko ëpp fuuf ndax alalu ab askan lëmm lañ la dénk kon sab alal war nañ ko mën a fësal mm. am te loolu moom mooy norme bi mooy norme bi nga xam ne moom la ñu wax ne sur le ci affaire déclaration de patrimoine lu tax ñu ni bëgg def lu ñu neex. Hmm. donc ci mbir moomu. Hmm. fësal biñ ko fësal ci jamono jii de faatu. Hmm. président war na tal leneen xam nga lu mu war relance économique bi ak mbas mi ak nu muy def ba luubal yi ñu fi dégg ak scandale yi ñu fi dégg muy depuis cour des comptes ba tey IG e ak yi nga xam ne nag génnee na ko te kenn mosu cee jëfe dara ñu taxaw ci ñu jëfe ko d'accord loolu moom la war a kal mais su ñu toogee ba jamono ji mu doog ko fegal dafa mel ni nag dañoo bëgg muur li nga xam ne moom la IGE génne ci fan yi waaw tontu nga ci laaj bi daanaka. waaw ndax ndax seetlu gi mooy fi mu ko defee. Euh, ndax amul leneen loo xam ne xëy na làqu na ci ginnaaw wala leneen lu nu ciy wut. Fatou lii tàmmal nañ ñu ko nag xam nga tàmbal nañ ñu coow jibee. mu nekk coow lu ñor réew mi. Hmm. lu ñor askan bi coow loo xam ne war na tax ba ëllëgu Sénégal euh, soppeeku ndax alal ji yëpp ñuy tuumal ay nit dañuy tuumal de xam nga hmm. dara leeragul. waaw mais fi ci tuumal sax yow da nga waroon xar sa tànki tubay. mbir mu leer pour lañ ñun ñu leeral ko. Hmm. waaw mais waroo wax dégg naa ñenn ji yoo xam ne lu tax sax ñu ñu ñu ñu c'est c'est censé être confidentiel. lu tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu di ko wax. Mhm. honorable fi ñuy jeexalee très ah, rapidement mooy mbirum suuf euh, littoral bi ak euh, foncier bi daanaka bàyyiwul benn gox ci réew mi Thiès googa nga dëkk euh, jamono mhm. yële wax nañ fi ay scandale yu bëri littoral bi nga xam ne aussi am nañu gàddu xeex bi daanaka beneen xeex dooleekuwaat na ci ndax plage Anse Bernard bi ñu ngi xam le ni jox nañ ko ay sud-africain yoo xam ni jot nañu fa ñetti hectares yow lii lépp noo ko jàngatee ak xëy na fan la coow li ci jugee jafe-jafe bi ba yegg si fi mu toll tey. mbirum suuf bi daal Fatou mën nañu wax ni que xalaatoon nañ ne bu ñu ñëwee tey ba ñëw du am deuxième alternance te mu bokkoon ci li ñu xeexoon ba ay bakkan rot ci tey du ñu amati lii lu ñuy wax boulimie foncière bi fi lëmbee woon ca régime bale passé mais tey li ñu gis jéggi na dayoo parce dem nañ ba jël sax di jël ay collines muy mel ni Mamel ak ay Anse Bernard nga xam ne foofu war na nekk littoral ba bu ñëpp bokk ñu jël ko di ko jël di ko akimu bu amee mooy volonté politique bi nga xam ne moom la président Macky Sall ñëwee woon ba mu jël nguur gi ba créer commission foncière boobu volonté politique boobu moom la ñu gisul bu fekkee ne def na ci ay déclaration jëfewu ko donc war na jóg conclusion réforme boobu nga xam ne commission boobu ñu jëfe ko war nañu pour ñu mën a change disposition yi nga xam ne ñooy may nit yi ñu mën a def lu leen neex ci suuf si ñu ñëwee tey ci Thiès ma am li fi nekk mooy d'abord forêt de Thiès bi ñuy déclassé ay centaines d'hectares yoo xam ne ñu ngi nekk di ko déclassé mu war a nekk lu ñu war a bàyyi xel ndaxte Thiès xam ngeen ne ab cuvette la maanaam ab kàmb la ay ay collines tiim ko bu ñu demee nag jël ci diggante collines yooyu ak dëkk bi muy forêt bi ñu déclassé ko nar ko occupé dañu xool naka lañ koy defee ndax su dul loolu mën nañu jural suba ndox mi daanu ci colline yi yëpp ñëw wàll euh, feesal euh, dëkku Cees bi xaw ma kañ lay dooni kenn ñaanu ko yàlla waaye bu boobaa nañu xam ne responsabilité la ñun ñi nga xam ne ñooy génération yi ko fekkee te taxawuñu ci leneen li mooy Cees problème yi am fépp moo fi am mais li ci yokk fii Cees mooy maanaam désaffectation yi mooy lu ñu joxoon ay njaboot ba pare ci ay terrain dëkkuwaay ñu toog ba tey gisatuñu lu ñuy dagg pour di ko lotissé ñu dem ne ñu koy nangoo ci beneen loxo. boole ci njaboot googu ñu ci gën a bëri ñëpp seeni ay tool la woon ñu fayee leen woon ay parcelles faatu hectare bu nekk nga xam ne dina jur vingt cinq parcelles mooy ñaar fukki parcelles ak juróom ñu coppati ci ñaar jox ko njaboot ga njaboot ga denc ko mu nekk alalam ñu waroon gunge njaboot googu pour mu jël alal jooju wutal ko ay kayit yu baax wutal ko bàyyi njaboot ga xamul. ñu mel ni Babacar Ngom ak ñooy ñoo xam ne soo paree suñ la affecté dangay wuti bàyyi. Hmm. mais famille yu bëri xamuñu ko sénégalais yu bëri. maire bi li waroon nekk taxawaayam maire yi mooy ñu gunge njaboot yooyu pour ñu dem ami seen i kayit hmm. suñu paree seen mandat ñu ni jàppale nañu nangami famille pour ñu mën a accéder à la propriété waaye du ñu ñëw. daa di ne dañuy jël parcelles yooyu nangu ko ci loxo askan bi loolu nekk na lu ñuy ñaaw lu nekk na loo xam ne mënuñu ko comprendre hmm. te yaakaar nañ ne loolu dootul amati pour fenn na ci nguur gi jóg famille yu ñu indemniser ñu jox leen yeneen kayit yu dul ay lettre d'attribution yuy may su ëllëgee ñu ñëw nangu li ñu leen indemniser ci beneen loxo leneen li mooy li des ci biir Thiès muy lu mel ni trente hectares yi des fii ci Gassab te nga xam ne am na aussi ay sénégalais yu bëgg def comme nga xew euh, Ndingler jël fa trois cent hectares foofu ci àll bi trente ectare fii ci biir ville bi mën naa ne méngoo naag loola. Hmm. bëgg ko àcc moo ci ay loxo ay sénégalais ay population yoo xam ne c'est des populations démunies ñu ngi woo nguur mu bàyyi ci xel li nga xam ne moom la famille Baro boobu bëgg def euh, euh, population jasab yi muy trente hectares yi ñu bëgg àcc moo fii. nañu fexe ba ñu taxaw ci ba li xew ndenge leer bu mu fa xew hmm. loolu moom vraiment ji mbirum suuf si dafa jóg jot hmm. président jël ci ay matuwaay ñu xoolaat loi bi ba scandale yi ñu gis yëpp dootul mën a amati. littoral bi lu am solo la. te dama xalaat ne li ci ñu mel ni Cheikh Oumar si honorable ak ñeneen ñi nga xam ne collectif boobu di xeex nañu def loi nañu fësal benn loi président Macky Sall volonté bu mu amoon en un moment donné la dafa jot mais bu xaaree nag ba ñu jël littoral bi saax saaxe ko comme la xew as Anse Bernard Anse Bernard man mënuma imaginer ñu jël ko di ko dagg di ko jox ay nit waa léegi dañuy deewu waa Dakar léegi dootuñ gisati géej gi sax maanaam ñi borom doole yi rek ñoom dong ñooy am droit gis géej gi hmm. loolu est-ce que nañ ko imaginer fii ci Sénégal man Ange Bernard ñun quand on était plus jeune Dakar nekk étudiant dañ fa doon dem di fa di fa sangu di fa def lu ne tey dañ ko nara a tëj noonu jox ko ay privé da ñu jël ko akimoo ko mais suñu naree def loi sur le littoral fekk ñu jël littoral bi yëpp sax-saxe ko parce que am na ay jàng nit ñu jàngat mbir mi nee nañ su sengoor ñetti nit la ñu ci littoral bi te dagg yoo xam ne la c'était précaire et révocable mm. ñu ñëw su Abdou Diouf affaire ya dem yokk ba yegg xaw ma ñaata su mu fuul ko ba mu nekk ay centaines ñii nee nañ liñ fi fekk la liñ ci yokk bëriwul mais yokk sax waru ci woon am. Hmm. Fatou bi Macky Sall continue de xeex bi ñu xeex ba mu yessee dafa waroon a def évaluation lu xew ci suuf lu xew ci littoral bi. Hmm. li nga xam ne dañ ko da nga xam ne xam nañ ne jaaduwut te warut a nekk ñu dakkal ko ne ñooña xaw leen ngeen ne tekk teg seen tànk bu ñu leen naree jëlee foofu ñu jëlee leen fa waaye doo continuer di joxaat ñeneen. ba ñuy dem ba di jël ay colinu mamel di ko jël di ko daggate. Mm-hmm. parce que dakaar tey day étouffé gis nga tey soo xoolee tey jii mbas mi lëmbe dakaar mais dakaar niñ niñ ko niñ ko niñ ko tabaxee la ak niñ ko tëralee la. Mm-hmm. Dakar nit ñi amuñu fu ñuy noyyee. lépp dafa fattu pollution bi ne fa complètement mm-hmm. tey war nañu mën a jël zone mamel boobu yépp dugg ci monument de la renaissance africaine jëmale ko ba foofu mu nekk un grand park boo xam ne du du nit ñi mën nañ fa doxantu mën na permettre Dakar mën a waat il nous doon souvent l' exemple de Berlin il nous donne l' exemple des États-Unis da dem dans des grandes villes yoo xam ne di nga fekk ñu amal la ay foore yu mag ci biir dëkk ba nga xam ne mooy nekk poumon wu dëkk ba paatu mm-hmm. kuy dem di jëli ay gazelle ay raneru di ko dem di ko tëj ay ferme yu ndaw fii ci Bambilor est-ce que di nga am vision wu ah ak poumon vert jërëjëf honorable ñu ngi lay gërëm bu baax Hélène Tine fàttali yow yaay coordonatrice su M7 mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi jërëjëf Fatou maa ngi kontaan bu baax di leen ñaanal yàlla taxawu leen seen liggéey di ngeen di def yëpp jërëjëf